Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu acca mbokki internet yi ñu ngi leen di waat baax bu baax a baax a wax ne eh, saa su nekk rek seen mbégte di suñu bànneex eh, fii ci Setsima TV ba tax na tey ki ngeen gis ni eh, ñu invité ko ay min na yàgg na fi def ay révélation waaye nag yàgg naa indi ay xam yoo xamante ni bi askan wi dañu koy soxla mbokki Sénégal dañ koy soxla mbokki bitim réew yi tamit dañ koy soxla mbokki internet yi ngi noonu ñu bàyyi ko mu daan nuyoo moom Serigne Mohamed faal ñu daal dugg moom ci waxtaan bi ci actualité waaye tamit na ci xam-xam sëñ faal ñu bàyyi da nga nuyoo noo def aw na ko yaa mu'inu wa bika nasta'inu wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xaaji Pape ñi ngi lay delloo ziyaara di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy suivre ci àdduna di ñaan borom bi subhaanahu wa suñu kàdd yi yàlla na fekk leen ci jàmm mm-hmm. lépp luñ ci wax te mu jub ñu ngi koy sante yàlla waaye luñ ci wax te mu xaw a déranger doomu aadama ñi ngi koy jégglu mbooleem jullit yi mm-hmm. bisimilah macha allah macha allah sëñ Fall tey nag waxtaan bi dama ko bëgg orienté ndax saa su nekk moo ñëwee dañuy waxtaan ci nga xam moom moo di actualité waaye tey dama ko bëgg ñu orienté ko ci xam-xam su ma nee xam-xam xel day dem ci li nga xamante ni moom moo di cat sëñ Fall foofu lay commencé danañ cat bu reyul sembal nee nañ parfois cat dina topp nit ba ci bàmmeel dañ koy faral di wax tey ñu gis ne euh, toll nañ jamono joo xamante ni bii ñiy génn àdduna bëri nañ te boo xoolee ñu si bëri ay célébrité la ñuy doon maanaam dafay nekk ñoo xam ne nit ñu ruñ ñun ñu ràññee la ñoo xam te ne ay bët da leen xool waaye tamit nag ay làmmiñ dañ leen di tudd te buñ nee cat rek xel lay dem ci bët ak làmmiñ est-ce que cat mën na gàllankoor doomu aadama alhamdulilahi rabbil alamin Pape cat foo yaakaar ni loo yaakaar ni cat mën na ko yàq rek mën na yàq lu ko ëpp mm-hmm. alquran moo ko saxal wa in yakaadu allazina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lama samiu dikra wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa lil alamin loolu cet moo ko tax a jóg te doomu aadama yu bari li leen yàqal mooy cat léeg-léeg nit am lu ko gàllankoor mu yaakaar ni liggéey la fekk cat moo ko topp léeg-léeg nit am wéradik yaramam fekk cat moo ko topp léeg-léeg nit nekk ci dara ba ñëpp xam ko ci mu xëy yàqu fekk cat moo ko topp sama bàyyi nag am lu mu ma daan wax nee na ma Mouhamad ma ne ko labbayka mu ni ma est-ce que xam nga ban cat moo gën a dangereux ci cat yi ma ni ko déedéet mu ni ma nga nekk ci lu baax ba ñëpp seen da nga wàññeeku mu ni saa yoo dëppee rek seytaane ngay taseel ma ne ko loolu dëgg la am na ñu nga xam ne sax fi mu toll nii cat daf leen di topp wala yaasu billaa ba dugal leen ci bàmmeel léeg leen nga dégg ñoo xam ni dañuy siiw lool macha allah ci li ñuy liggéey ak ci li ñuy def neex ñëpp saf ñëpp waaye fekk na wutuñu lu leen aar ba làmmiñ bu nekk tudd leen bët bu nekk xool leen te am na làmmiñ yu nga xam ne lu ñu tudd rek mu yàqu am na bët yu nga xam ni lu ñu xool mu yàqu dafay am cat dafay jàpp nit ki ci këram nit su ma waxee nit ñi ci këram yor njaboot ñu aw ci yoonu jub jàng macha allah neex xel macha allah waaye ci kaw neex xel boobu ñu neex xel ci fa ñuy jànge nit ñi tudd njàng moomu ak seen xel mu rafet cat dugg leen ba ñu xëy nekk ci beneen yoon cat dafay jàpp nit ki taaru rafet bët bu ne xool ko làmmiñ bu nekk tudd ko ba mu xëy ñaaw ci doomu aadama yi su ma la ko waxee dina la jaaxal léeg-léeg nit ñaaw ci ñëpp waaye mu am koo xam ne daf koy teg bët jàpp ni kii moo dàq ci àdduna hmm? parce que doomu aadama ci boppam yàlla bindu ko pour mu ñaaw moo dàq ci ci lu yàlla bind waaye nag daf ci am ñu nga xam ni seen taar da leen di jaay ba fu ne ñu dem fa ku ne xool leen mm-hmm. cat dugg leen ba ñu xëy seen taar boobu dootu safe dootuñu saf kenn ala kulli xale mm-hmm. wala nga nekk artiste jóg ba ñëpp dégg la ñu naan kii li mu def ni mu neexee cat dugg la nga xëy rek wëlbatiku dafay am ci artistes yi yaa ngi koy dégg. nga wëlbatiku maanaam. nga wëlbatiku doo safati nit ñi. doo mhm. li ngay musique dootu neex nit fekk cat moo la topp. Hmm. dafay jàpp ci mbërum làmb mi. am doole am kattan mais ci kattan boobu nit ñi di ko wax ak mëne a mu xëy ku mu bëree rek mu daan ko ñu naan moom kat nangama tax mu daan fekk cat moo ko topp waaye lu ci mënti am. yonent bi daf ñu jàngal ne su fekkee ni da nga gis pa mu taaru walla mu am dara soo ko tuddee neel macha allah te nit ñi amatuñ jot googu mm-hmm. su boobaa mooy tax cat du ko dugg mais nit ñi nag chaque jour ñi ngi yàkkantee gis dara waaye suñu gisee dara dañ koy wax suñ ko waxee rek cat dugg leen cat dugg leen waaye mooy comme li ma la wax léegi da ngay gis nit ci internet bi mm-hmm. macha allah walla nga gis ko ci réseaux sociaux yi la may wax rafet jub waaye mu xëy mu am accident làmmiñ wala yaasu bi laa wala mu xëy dugg ci oto mu accidenté dee yooyu yëpp cat daf koy waral. Mhm. mais Fall est que cat cat cat dina topp nit ci photo wala dina topp nit ci vidéo wala mu topp nit ci internet wala cat damay jàkkaarloog yow wax ci yow cat topp la wala foo mën toll ci àdduna bu ñu xoolee sa photo wala sa vidéo bu ñu waxee yow cat mën na laa. waaw mooy li ma la wax rek gis naa la ci internet bi ma gis sa photo mu rafet ma ne macha allah Pape ma ni Pape Faye de oh ak rafet. parce que Pape Faye laa wax waxuma keneen wala nga wax dara ma ni Pape waxam ji ak a jub te waxuma macha allah su boobaa Pape Faye laa wax mais waxuma keneen boobu cat daf lay dugg ala kulli su ko defee nit ñi daal bari nañu ñoo xam ne li leen di gàllankoor mooy wala yaasu bi laa su ko defee nit ñi nañuy jublu ci seen bopp. Mm-hmm. ci lépp lu nga xam ni dafay dindi cat. xale bu jigéen a ngi nii. mel na mu war a mel góor ñi ko bëgg bari na waaye mënul wax lu sotti pour que takk am wala wala relation bu dëgër am. loolu tamit cat da koy def. cat da koy def cat da koy def moo tax léeg-léeg ma am koo xam ne dafay sàkku pour am borom kër mais su ma xoolee ay mbiram rek damay xam ni kii cat moo ko gàllankoor ci lu bari. Mm-hmm. mais li may njëkk a def mooy sangat ko cat. du ma ni dana dañ complètement mais lu bëri dana dañ parce que cat moom li feek yaa ngi sangutoo tamit chaque jour nit ñi di renforcer wu ci di la catu su ko defee su boobaa nag mooy première ordonnance bi ma koy jox boo xam ni yàlla mën na ko ci sax jaare ubbi daal di koy defal borom kër bi mu bëgg ala kulli xaal kon faal cat on peut dire que cat mën na laa tëj ba dootoo am dara sax surtout loolu moo ci gën a daywaar nit ki am bunt bu mu fëgg mu ubbeeku seet li muy gën a gaaw a def doomu aadama mooy tëj ko tëj ko. te lay tëj ci lépp. tëj la. ma mhm. non seulement sax pour nga yëkkati dërëm dem ci sëriñ bi pour mu ñaanal la pour cat loolu mën a dañ doo am dërëm boobu. cat dafay tasaare alal. nga am alal nga xëy muy saaw saaw ci say loxo ba dootoo sax alal doo xam ci lan la dugg cat da koy def. cat dafay dugg nit ki ba maanaam pour mu juboo ak kenn sax dafay jafe cat daal pap nee naa la loo ci wax am na loo bàyyi. mais cat est-ce que parfois sëñ Fall parce que dama dégg am na ku ma naan lu mu am day dem ndax cat day def lool. mooy alal ji ma la wax léegi nii la day tasaaroo da ngay am dara nga xëy mu tasaaroo ci say loxo loolu cat da koy def cat da bari na bari na ku dara arrivé. ba mu jaaxle ci jëmmi boppam moo xam ci yaramam la moo xam ci nekkinam la moo xam ci relation am la fekk cat moo ko yàqal loolu mhm. amul nag lu muy bàyyi macha allah sëñ Fall damay des ni ci cat ci cat loolu noonu ba tey ndax boo xoolee uh, yàlla mooy reyee dëgg la waaye dañoo gis ne ñi génn ci àdduna ci star yi mhm. surtout ci weer bi ni ñu nekk bëri na surtout ci ñi nga xam xamante ne ñoom ñooy def wàllum cinéma mhm. ñu si bëri nee nañ cat da leen topp naam yàlla mooy reye dëgg la waaye cat làmmiñ ak bët moom moo leen topp sëñ Fall naka la nit ñi mën a def ba mu jot ci cat surtout ñuy feeñ ci télé di wax ci rajo ak nekk ci internet bi waaw dee nag moom dafa nekk programme yàlla foofu moom ala kulli xaalin pap soo fi duggee hmm. ku dee rek yàlla moo la rey dëgg la waaye nag sabab bi tax nga dee tamit des fois nit da koy def hmm. ne ala xaalin accident yeeg problème yu bëri yoo xam ne daf leen di dal ak xëy seen der yàqu ci internet ba dootuñu saf kenn mhm. cat mën na ko def da koy def macha allah waaw mais ala xaalin képp koo xam ne daal yaa ngi nekk ci internet bi bët yi dina gis mhm. làmmiñ yi dina tudd xamal ni muccoo ci cat muy man muy sama morom pap man du ma tëdd te sanguwuma cat est-ce que man du ma tëdd mukk te sanguwuma jat waaw sëriñ Fàllu Mbàkke radiallahu anhu yal nañu ko yàlla fayal da daan wax ni suñ naan diw bu nekk rek dafa am lu muy diwoo hmm. ñu bàyyi xel ci loolu. macha allah waaw macha allah am na solo sëñ Fall <laughs> waxtaanu cat bi moom neex na lool su may woon nag luñ ci génn waaye nag dañuy dugg ci euh, leneen ndax tey wax naa la ko ne daal tey xam-xam la ñuy waxtaanee sëñ Fall ubbeeku damay dégg ñu naan nit ki dañ koy ubbi parfois ba lu mu yóotu jot ko ndax ubbeeku am na. ubbeeku am na nag ubbeeku moom euh, sikkar dina ko joxe sangu dina ko joxe. waaye mel na mag mu baax daf ma wax nee na ma soo bëggee yàlla dangay ngay nungoo sikkar mhm. waaye soo bëggee wërsëg da ngay nungoo sangu mhm. soo bëggee yàlla da ngay nungoo mhm. waaye soo bëggee wërsëg da ngay nungoo sangu Pape am na loo xam ne tey ci ay garab la xobu garab la benn garab bu nga xam ne su ma ci wutoon tey cent vingt neuf xob xob bu nekk ma bind ci yàlla tayfu jox la ko nga sangoo ko paap ñaari fan laa la may maanaam yaakaar joo doon yaakaar yaakaar jooju du tas ak ci koo ko yaakaare day am non seulement da ngay am wërsëg bu nga xam ni xamoo fan sax la bàyyi ko kon ubbeeku lu am la ala kulli xale tey tey tey su ma lu ko defaloon. shahida la yàlla seede na ko ak lu la mënti tëj moo xam liggéey la parce que nit li ko mën a tëj dafa bari. foofu laa fàttee dugg ak yow. bàkkaar dafay tëj nit. cat bii ma la wax dafay tëj nit. liggéey dafay tëj nit. Mhm. day waral tamit yaakaar yuy tas bari. Mhm. mais su boobaa nag sangu rek moo ko mën a dindi. sangu rek moo ko mën a dindi. moo ko mën a dindi te lii ma la wax nii soo ko defan ak bu mu ci mënti doon maanaam da koy effacé daal di lay ubbiwaat te da ngay am xaalis ala kulli macha allah xaalis de moom nit ñi bëgg nañ Pape man yaa may forcé mais man bëgguma woon sax di wax ci internet mais chaque jour mhm. danga nga may da nga dikk pour mhm. euh, di wax ak man parce que askan wi ñoo ko soxla mais man li ma bëgg Pape mosuma génn fenn mosuma dem fenn dëgg la sama numéro téléphone ba nga xamee ba léegi musta sensé mhm. benn numéro laa yor moom yoruma ñaar aw ma sens interdit fu ma neex laay dem dëgg la waaye lépp lu mu bëgg mi ngi may fekk si fii macha allah loolu nag lu ci ëpp nag sangu daf koy daf koy def. sangu da koy def waaw. ak foo mënti nekk. Mhm. am na looy sangoo moo xam commerçant bi nga xam ne mu ngi def commerce. am na lu muy sangoo force day xëy di jaay oto bi nga ki nga xam ni mi ngi yor oto am na càngat bu muy def oto yooyu day yokk waaye du yàqu mukk ci loxoom ak leen ñi nga xam ne dañu yor entreprise surtout ki nga xam ne dafa yor entreprise mhm. am na benn ayat alxuraane bi ñuy wax aw ka lazia marra ala xariyatin mi ngi ci suratu baqara am na loo ci liggéey ki nga xam ne dafa daano ba yaakaar na ni dootu jóg ak entreprise nu mu mënti toll soo ko ko joxee mu jëfandikoo ala dina delluwaat fa mu nekkoon ba ba passé foofu alxuraan nag laay wax ma shahid naa ilaa bi ma alim na macha allah kun naa lil xayba hafisin macha allah bismillah du ma tëj du ma tëjee li nga xamante ne moom moo di yokk awra sëñ Fall yokk awra damay dégg nit ñi di ko wax ci internet bi lu ci bëri naam nekk na loo xamante ne léegi bari na ci li nga xam xamante ne moom moo di internet bi mais man sama question yow yow laa koy laaj sëñ Fall ndax yokk awra am na. waaw lu am na. Hmm. am na. xam nga lu tax man la am na Pape. Pape xam nga fi mu toll nii dangaa tuuti. Hmm. man ngaa dem tey ci médecin mu jox la loo xam ne heure bi déewul ku la gis danaan Pape fay ni mu amee yaram. tëgg la. léegi léeg nga gis nit koo xam ne dafay am yaram ba yaramam jéggi dayoo. Mhm. ñu traité ko ba mu xëy ñu naan kii kat ni mu amee woon yaram mais léegi dafa tuuti. Mhm. noonu la yokk awra amee lu am la. waaye nag am na ci mbir yoo xam ne maanaam yu bayin luñ du leeral waaye nag lu am la ala kulli mhm. lu am la lu am la. ah sëñ Fall na foofu tamit dafay jar leeral. soo demee ci médecin bi. ordonnance bi mu lay bindal pour nga am yaram. ak man su ma demee ci médecin bi ordonnance bi may bindal pour ma am yaram. dafay wute. day wute. nit ñi léeg-léeg dañuy am benn secret. secret boobu ñu yaakaar ni mën nañ ci traité ñëpp. su boobaa mën nañu am ci kii ndam waaye du ñu am ci kenn ndam. mais yokk awralu am na ala kulli xaal macha allah macha allah macha allah sëriñ Fall <laughs> waxtaan bi neex na waaye tamit nag euh, sama dernière question du ma du ma du ma tëj te du la ko laaj muy question boo xam te ne bi euh, question d'actualité la comme ni nga koy faral di waxee saa su nekk euh, tey ñu gis ne waxoon nga ma ko yaa ko waxoon yaa na ma woon mbir mi lépp lépp lépp lépp lépp ci dal lay mujjee ah. te gis nañ ne tey àdduna bi dal na Euh, ba mu yëngoo dama laa woo nga ne ma sëñ Pape ma laa nga ne ma lépp dina dal tey gis nañu lépp dal na tey sa gën sa dernier kàddu ci askan wi gannaaw ba lépp dayee lan ngay wax askan wi. Pape su ma juumul day dama la doon wax ni la man du may def révélation mhm. mais bii yoon dina am benn révélation bu ndaw bu ndaw bu may def. Mhm. na waaye yëngu dina amaat. yëngu dina amaat. waaw du ma ci xuus na. Mhm. yëngu dina amaat. Hmm? waaye nag lépp tamit ci dal lay mujj parce que Sénégal benn mag daf ma wax ni ma mag ñi ñoo fi ñaan. Hmm. ma ni ko soo demee Israël yonent yi wàcc yëpp lu ci ëpp Israël lañ wàcc. Hmm. te bal yaa ngi fay tàkk. maa ma ni ko Sénégal li ko dalal mooy am kilifa. suñ demee ba jëfin yëngutu ba yëngutu Serigne Mountakha yal na yàlla fayal ñu ko ku mel ni Serigne Mountakha su waxee affaire yi ni tekk. muy kaddu kilifa loolu moo am Sénégal ba yënguwaata tamit su amee kilifa yi dinañ wax ba dal dana amaat mhm. mais révélation bi ma war a wax mooy euh, bëgguma di ko waaye su fekkee ni danga gis loo xam ni dafa nara a doomu aadama bi wala yaas bilaa yàlla na ko ci yàlla musal mhm. sañ nga ko wax doomu président bi ku am yaram ki nu mu tudd Amadou Sall Amadou Sall mhm. dama gis mu tawat tawat ju metti hmm. te la ko waral mooy dama gis benn manifestation am ñuy tiire bal yaayam hmm. mu dox diggante bal bi ak yaayam bal bi dal ko loolu nag ba ma ko xoolee dama gis ni moom am na lu nga xam ne naroon na dal yaayam hmm. mais ci doom yi lay wàcc parce que yaay ji bàyyiwul boppam waaye nag am na foo xam ni maanaam masalan ñu muy def yu nga xam ni boolewu ci ay doomam ala kulli xaale bu defee su boobaa nag su fekkee ni mi ngi may dégg wala ku mu mënti dégg mm-hmm. man nag politique ma mm-hmm. ànduma kenn mm-hmm. su ma doon àndal Ousmane Sonko lay àndal waaye nag sama mbokku jullit la mhm. maa ngi koy ñaan mhm. su fekkee ni mën nañ ko defal mhm. cent vingt quatre mille xasbuna allahu wa niamal wakiilu cent vingt quatre mille salaamun xawlan min rabbin rahimin nañ ko ko defal moom non seulement ak njaboot ga ci boppam parce que nag su doon benn fan la sax ñoom Macky Sall ak soxnaam defal nañ ko Sénégal su ko defee loolu daal dama ni woon man incha allahu taala su fekkee ni am naa kii wax dinaa ko wax. macha allah incha allah alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi lay jaajëfal sëñ jërëjëf baarakallah yàlla yàlla barke salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Setsima TV. L'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV xibaar yu wér di